warsagal ñu ci ngëneelam ñu dëkk ak ñoom ca këru teraangam mbokk yi a ngi fàttaleku suñu darsi bi weesu ñu nekkoon ak yéen ci lenn ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa ak saxaabaam waaye mu nekkoon lu gën a xejje lu gën a ràññeeku ndax biir kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam la te mooy kenn ci yaayu jullit yi di suñu yaay Aïcha radiyallahu anha fàttaleku ngeen suñu jaar-jaar ci dund suñu yaay Aïcha ne nit la ku xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni na ko ba waa këram dugg ci lislaam fekk moom juddoogul tax na mu ne moom xàmmewul ay waajuram lu dul mu ngi leen xàmmee ci biir lislaam fàttaliku ngeen fii ak la batam jaar waaye fàttale fàttaliku ngeen itam gaar-gaar bi nga xam ne gaar na ko moom suñu yaay Aïsa radiallahu anha ci tukki mu mu ak yonent bi salallahu alayhi wa sallam euh, tukki mooma jàngat nañ fen ya ca sosu ak làmmiñ ya ko awante alaw teku ko waaye it la ca yàlla subhaanahu wa taala jaarale ci ay yiw te bu ngeen ko fàttale ko yàlla subhaanahu wa taala mu ngi dale xista bi ci ne ñi nga xam ne ñoo indi fen wa ab kuréel lañu ci yéen loola nag bu leen ko jàppee ne aw ay la waaye aw yiw la bu leen yaakaar ne aw ay la ci yéen waaye na ngeen xam ne seenu yiw la ba xissa wa demee ba jeex maanaam aaya yi ñëw ci mbiri fen woowa ba mu demee ba jeex yàlla subhanahu wa taala jeexalee ko ci ne ulaika mubarrauna mimma yaquluun lahum magfiratum wa risqun karim ñooñu de ñu ñu setal lañu ca lañ leen di waxal waaye nag nañu xam ne am nañu njéggalu yàlla am nañu warsak wu tedd kon xew-xew bi dëgg la metti na jafe-jafe bi diisoon na ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak waa këram ak ay àndandooram diiru weer naafiq faj na ci ak ndokkum maanaam am na ci xol bu sedd waaye fa mu mujjee lu ca tàngoon xolub jullit mujj na sedd lu ca seddoon xolub naafiq mujj na tàng kon mbokk yi dañuy continuer ak suñu Aïsa radiallahu anha waaye tey dañuy dajewaat ak moom ci meneen tukki mu ànd ak yonent bi salallahu alayhi wa sallam euh, albuxaari ak muslim dañuy nettali xew-xew bu xam ne suñu yaay aïsa radiallahu anha moo ko nettali ne benn tukki ci tukki yonent bi salallahu alayhi wa sallam mu ànd ak moom dañoo dem ci waxtu wu ñibbisi dem ba yàgg ab caqam wadd bi caq bi waddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam campé maanaam daal di eh, dal moom ak ñim àndat pour caq boobu suñu Aysa waddale nañ ko seet ba gis ko ñu koy seet ba far jàpp fanaanal ndax gisuñu ko bañ jàppee fanaanal nit ñi dem nañu ci Abu Bakar radiyallahu anhu ko gis nga Aïsa lim defati gaare na yonent bi sallallahu alayhi wa ak jullit yi ci xur wu xam ne ndox amu fi barab bu xam ne ndox amu fi ñu ngi ni gaare fi yonent bi gaare fi jullit yi Abu ñëw fekk Aïsa fi mu toog Aïsa mu ne li ma daj li ma daj ci moom ci mettital ak yedd ak ay xaste la ma ca dajal yàlla rek ko xam dem na sax bay jam ay baaraamam ci samay wet naan ma yaa ngi gaara yonent bi sallallahu ci fu amul ndox gaara fi julli di fanaa leen ci la amul ndox di wax la muy wax di ma jam yow daal coono nga ci nit ñi seen tukki saa yu ngeen mu ne lam may def yépp mënumaa yëngatu waaye mbokk yi lu tax mënta yëngatu parce que ab tànkam la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di nelaw mu ne dara terewul maa yëngatu ci yim may def lu dul ngir bopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne mu ngi ma gegganoo di nelaw te bëgguma yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem nañu ba bët set ndox amut julli suba jot na waaye yàlla subhaanahu wa taala wàccee na alquran wa in kuntum ala safarin walam tajidu kari walam walam tajidu walam tajidu ma an wa in kuntum marda ala safarin déedéet aaya baa nga ca suratu maida yaa ayyuha allazina amanu ida qumtum ila salaati faxsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alqaa'iti aw lamastum annisaa falam tajidu maa'an fatayammamu fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi ru'usikum wa arjulakum famsahu famsu bi wujuhikum wa aydikum minhu lu ca tegu maa yuridu llahu li yajala alaykum fi diini min xaraj yàlla subhanahu wa taala ne ñi gëm su ngeen jógee jëm ci julli na ngeen raxas seen kanam ya ak seen loxo ya ba ca cooñ ci ya na ngeen ca raay seen bopp ya raxasit seeni tànk ba ca dojoor ya waaye su fekkee nag da a feebar wala ngeen nekk ci tukki wala ngeen ànd ak soxna yi wala ngeen jóge ca àll ba gott ba te amuleen ndox garab a ngi nii mooy dëgmal leen ci pàkk suuf ngeen tiim ci naka xamsahu bi wujuhikum wa aydikum min lu tax maa yuridu llahu li yajal aleykum fi ddini min xaraj lakin yuridu li yutahirakum wa li yutimma nicmatahu aleykum laallakum tashkurun yàlla subhanahu wa taala defalu leen genn jafe-jafe ak benn xat-xat coono ci diina ak yombal la yàlla dafa leen bëgg a laabal dafa bëgg a matale ay xéwalam ci yéen ngir lan ngir ngeen sant ko kon xéwal a ngi nii gu xam ne xew-xewu Aïsa bi moo nekkati sabab bi moo tax aaya bi bi mu wàccee Usayd ibnu Xudayr xam ngeen ne kenn la woon ci nuqabaaw ansaar maanaam kenn la woon ci délégué yi da yonent bi sallallahu alayhi dafa tànnoon ci waa ansaar ñu xam ne ñooy délégué yi waa ansaar yëpp ñooy wax ci seen tur Usayd ibnu Xudayr xam ngeen ne bi Saad ibnu Muaas di dund radiallahu anhuma moom moo doon ñaareelu personnalité ci Aws waaye gannaaw bu Saad ibnu Muaas gaañoo moom mooy bopp sangu waa aws euh, di genn giir ci giiru waa ansaar Usayd ibn Xudayr lan la wax Aïsa radiallahu anha dafa ne dëgg-dëgg yéen waa kër Abu lii du mooy seen yiw wu njëkk amul benn jafe-jafe bu ngeen mos a gaar yéen waa kër Abu Bakar loolul ne mujj ga nekk na yiw wu xam ne day dellu ci jullit yépp su yaay Aysa radiyallahu anha ne gannaaw bi aaya bi wàccee baayam ma ko doon mboqatu ak di dompata ka def yëpp ak di ko yedd moo mujj ne ko neexut ba neexut yow sama ndoom gisuma lu dul daal ne yow ku ñu barkeel nga gisuma lu dul ne ku ñu barkeel nga xaqan ku yàlla barkeel la Aysa radiyallahu anha ndax xam ngeen ne tuuma ya ko ñëwaloon yàlla subhaanahu wa taala rek na ci ay problème yu xam ne ci diggante jullit yi nu ñu war a sàmmantee der nu ñu war a téye seen làmmeñ ak tey njaalo ak yecca aju ci su fekkee ne nit mu ngi ci nar a gàddu gàmmeñ làmmeñam di wax gis nañ ne ku ñu barkeel jafe-jafe yi jullit naroon a am ci seen diina su fekkoon ne mënuñoo julli lu dul ba tañu jàppee yàlla subhaanahu wa taala génnee leen ci ci sababu xew-xew bi dëgg-dëgg ku ñu barkeel la waaye lan moo xew gannaaw bi ñu jullee gëléem gi mu waroon ba ñu ko dàqee foofu lañu ñu fekk fekk caq bi ci ron gëléem gi fi mu tëddoo kon mbir la woon mu yàlla subhaanahu wa taala naroon ku ñu barkeel la moo tax dañu gis barke boobu mu feeñ ci yeneen wàll euh, masruq day nettali mu ne dafa mos a toog ak suñu Aïsa radiallahu anha xam ngeen ne euh, bu ma ne masruq ku xam ulama u tafri tafsir ci taabiin booy tudd doo ko mën a tëbaale kon ab jàngalekat la woon moom su yaay Aïcha bu xam ne taabiina yi ba ñenn ci saxaaba yi dañu doon jàng si ci moom euh, mu ne ñu wax ba yegsi ci gisu yonent bi sallallahu alayhi wa gu mu gis boromam allah subhanahu wa taala su yaay Aïcha mu ne déet teeylu leen képp ku wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis na boromam kooka rëy na nu mu fenalee yàlla ndax masala bi mboolem xeet wi maay ku ko ci njëkk laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xeet wii maay ku ci njëkk laaj yonente bi sallallahu alayhi masala bi te mooy li yàlla subhanahu wa taala wax ne laqad ra'aahu nasratan uxra inda sidratil muntaha yàlla subhaanahu wa taala wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis na ko waaye wax ma gis na yàlla de gis na ko ca sidratul muntaha waaye waxit fi mu ne summa dana fa tadalla fa kaana qaaba qawsayni aw adna fa awxaa ila abdihi ma awxaa maa kasaba alfuaadu maa raa yàlla subhaanahu wa taala ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam jegewante na ak këmu gis jegewante bu xam ne dem na ba mel na arc arc bant ba mu ñuy fette ñaari catam yooyu nu ñuy jegewante wala lu gën a jegewante loolu mu wax yu jaamu yàlla ba la ko yàlla wax yu damaa waxee maanaam baat bi ni mu dëkkee nii ngir ñu gis lënt yi ci am ci ñi ko ñi ko ca génnee ña ca génnee lënt yàlla subhaanahu wa taala ne bët ba jengut jéggiwut dayoo itam ca la mu gis xol bi it nag fenut yàlla subhaanahu wa taala ne gis na ko geneen gis ca sidratul muntaha maanaa yi yëpp li muy niru ay damair la yoo xam ne ki koy dégg dafay yaakaar ne yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla la jegewanteet yàlla gis yàlla la nàngam suñu Aysa mu ne maa njëkk a laaj yonent bi masala bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ma du yàlla la gis jibril lay wax jege ñaante googa jege ñaanteem diggante moog jibril la amma fa awha ila abdihi ma awha fa awha jibrilu ila abdillahi ma awhaahullah jibril yenkawal xamal jottali jaamu yàlla bi lan la yàlla waxyu la yàlla waxyu jibril jottali ko jaamu yàlla la jibril la yonent bi gis ñaari yoon ci melokaan wa ko yàlla bindee di melokaanu malaaka nga xam ne mu ngi amee juróom benn ah juróom benn téeméeri laaf yu xam ne bi mu tàllalee ñaari laaf yi saddal ufuq maanaam fatt na goox bi ba su fekkoon dafa tàllal ñaari laaf yi ci diggante ndey joor ak càmmoñ maanaam sud ak noor ke ko gannaaw mënatul gis jent bi ci diggante asamaan ak suuf ci ñaari laaf te juróom benn téeméer la ko ci yàlla binde gis googa yonent bi defut ko ci jibril lu ñaar benn bi mooy summa danaa fata dalaa googu amoon ca baaliye màkka ak beneen bi ci sidratu muntaha waaye bu dee borom bi dafa ne nuurun anna ara ak leer naka laa koy gisi ñeneen jéngal maanaa bi ne dafa ne ak leer laa gis li ma bëgg a wax fii mooy masala bu sew boobu te yitteel jullit yi lool su yaa Aïsa nee na xeet wi moo ko ci njëkk a laaj moo tax ku mel na imaamu Zahabi rahimahullah dafay wax ne masala bii masala bu rëy a rëy la bu xam ne la ca gën a jekk ci ñu bari ci xeet wi mu ñu noppi ci ndaxte amul benn dalil bu leer bu jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buy wane ne yonent bi mas na gis boromam ci àdduna loolu kon duñ ko saxal fenn ñaareel ba nag mooy gis boromam ci gént loolu kay am na ay yoon ñetteel ba mooy jullit bi gis boromam ca àllaaxira ca aljana loolu kay ahadis yi ci ñëw mu tawaatir la kon danañu yëg ne soxna suñu barkeel yi fii jullit yi bariwaan na luy seen problème fekk moom moo ci jiitu ci xam ko ni mu jiitoo ci sababu ñu yoonalal xeet wi tiim noonu la jiitoo ci xeet wi yépp itam ci masala bi loolu wane li boroom xam-xam yi ne xeet wi yépp xaa isa moo jigéeni xeet wi yépp Aïsa moo ci ëpp xam ci lu amul benn sette waaye mbokk yi si yaa Aïsa radiallahu anha nit la woon ci nit ñi kon luy gaar nit ci mer ak kontaan dana ko gaar albuxaari muslim nettali nañu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam benn bis nee na ko Aïsa man danaa di xàmmee sa ak sa kontaan soo ma mere wala nga kontaan dana ko xàmmee mu ne ko noo koy xàmmee mu ne su fekkee ne da ngaa kontaan booy géñ da nga naan laa wa rabbi muhammad waaye soo ma meree da naan laa wa rabbi ibrahim eh? kontaane booy wax da nga naan laa wallah laa wa rabbi muhammad bu kontaane dafa naan géñ naa ko ci borom muhammad waaye bu fekkee dafa mer daf koo mere dafa naan géñ naa ko ci borom ibrahim maanaam borom ibrahima du mooy borom muhammad waaye waaye nag buleen leen fàtte ne nit la waaye ci ñi gën a mag ci nit ñi la bokk ci jigéen ji gën a mag bi ko yonent bi sallallahu alayhi lan la ko wax daf ko ne waaw dëgg la waaye nag laa ahjuru illa smak dëgg la waaye nag sama gàddaay googu yemu lu yeggul lu dul ci saw tur dong maanaam sa tur dong laa gàddaay wax leneen wax weneen tur waaye amul leneen lu ma gàddaay ci yow xanaa kon sama xol ëmbalu la lu ma lay gàddaaye amul lenn lu ma gàddaay ci yow sa tur rek laa gàddaay bañ koo tudd tudd tudd Ibrahima waaye amul leneen lu ma ëmb ci loola lu tax mbokk yi mooy bu leen fàtte ne suñu yaay Aïsa radiallahu anha xale la woon ci xale yi waaye xale bu ñu barkeel yaakaar naa ni dangeen ko jàngat bu baax a baax ci taxawaayu yonent bi sallallahu alayhi wa ndax ab caq bu réer mu jar ñu fanaana ci wut ko dafa natt xale fi mu toll fàttaleku ngeen ca dar si yële weesu fi si yaay Aysa doon wax ne doon na ko yebalal ay moroomam sax pour ñu fondoor ak moom moom Aysa muy dénkaane ne na ngeen sédd cër xale lu jigéen ak tolluwaayam ndax dafa bëgg fo kon yonent bi sallallahu dafa doon sédd tolluwaay yooyu naka noonu ci jeexit yi ñu gisit yonent bi sallallahu alayhi sédd tolluwaay yooyu waaye mbokk yi bokk na ci liñ ci war a jàngatee mooy ñeewante gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam am ba jataay panaan boobu am waaye ñu xool itam borom kër ndeke duur lu mu xam ci këram wax ko ah yonent bi sallallahu alayhi wasallam buñ ko meree dana xam ne mere nañ ko waaye ndax day ñëw ne ah, sa du cuural ji faale wu ma ko nga sa xol dana dagg da nga nangam da nga nangam ndax noonu la déedéet wala soxna si yow loo lan la lu xew déedéet bi xam na ne daal bu meree nii lay waxee bu kontaanee nii lay waxee te xam ngeen ne netti lu ko ko lu dul fa jàmm amee wala déet fa jàmm amee la ko ko nettile kon mbokk yi lu ñu ciy jànge mooy yonent bi ci këram mooy baay ju fees dell jég yërmande waaye mooy borom kër gi fees dell ak xàmmee itam tolluwaayu doomu aadama ak bindareem ci fu mu tàngee wala fu mu seddee mu mën a seere këram loolu dana feeñ ci beneen wàll <clears throat> euh, suñu Aïcha radiallahu anha dafay nettali benn jigéen bu ñëw yonent bi sallallahu alayhi dalal ko may ko yitte lool jàmmanteeg moom lool mu ne ba mu demee yonent bi sallallahu alayhi kii kan la mu ne ko soxna siidee dafa ñu daan ñëwal ca fani xadija bi fi Khadija nekkee te nag dafa bokk ci ngëm yàlla sàmm kóllëre rek démb su Aysa mu ne amul kenn ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa ku ma fiiree ci moom ni ma fiiree Khadija te Khadija fekk na fekkante wuñu ñu sax ma ak moom faatu na lu njëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ma denc maanaa kooka faatu fekkante ak moom fiiraange gëm ko ëmbal ëmbal ko ñii muy dundat ci kër gi foofu li may wax ne borom kër day comprendre situation këram mu feeñ ci suñ yaay jooju waaye imam zahabi am leeral bu am solo bu ci def mu ne lii dafa bokk ci yërmande yàlla ak ñeewante gi mu defal yonent bi sallallahu wa sallam ci jeexit boobu Aïsa ëmbal ci faatu xewut ci ñi mu dundat ngir loolu bu amoon dana nëxal yonent bi sallallahu wa sallam ci dundam ak këram waaye yàlla subhaanahu wa taala rattaxal xol yi ba lañ ëmbal ka dem dunduñ ko ak ñi fiy dund mu ne amaan na bokk na ci lu gëna a woyofal lool cofeel gi nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala na ko xolu yontu bi sallallahu alayhi mu ëmbal ko Aïcha radiallahu anha te loolu dara waralu ko lu dul kàddu googa baayam waxoon ne sama gi suba ci yow lu dul ne ku yàlla barkeel ga waaye bu ñu nee ab xale yaakaar naa ne sunu jamono tey jii di jamonoy droit de l'homme droit de la femme droit de l'enfant droit droit yu dul jeex yooyu bu ñu leen laajoon ñu wax lu nopp mënta dégg ci sëyub xale bi ndax yéen a ngi fàttale ku ne yaa Aysa ci juróom benn at la ko yonent bi sallallahu alayhi takk jabaroo ko ci juróom ñeenti at gaa yi lu ñuy wax ah xam ngeen ni ñoom dañu naan même sëy bu yeggut fukki at ak juróom-ñett dañu naan mariage précoce noonu lañ ko tuddee ab sëy bu ñorut bu teel bu xam ne dañ ko def lu jiitu waxam waxtoom ba mbokk yi ñoom ñoo xam sëy fu mu war a tàmbalee wala yàlla moom moo xam fu sëy war a tàmbalee ndax dañoo tëral sëy fu warta tàmbalee yàlla subhaanahu wa taala ko ba tàmbaleel yonentam ab sëy foofa déedéet mbokki tomb bi dafa jara taxaw ndax kàddu yooyu lu neex ay nit ñu nga cay wax moo na man laaj bi may laaj ñooñu mooy nan lañuy ñuy mbambee sëy bu ñu fas ca ñaan ga ak maye ga ak seede ya ak ga mu dagan nekk ci kër ñu ne warta am ci at yu tuuti yooyu ba pare ñoom ñuy légalisé li ñuy tuddee prostitution précoce di ci joxe ay carte nan lay am at yi ñu tere ku ci sëy ñu ngi ciy maye carte ku ci njaalo wala de ñu ngi cee défendre jigéen mu njaalo ci di ko yebal ci hôtel yi di ko yebal ci boîte de nuit yi di ko yebal ci nangam ak nangam bu ko ramaskatu guddi dajeeg moom ci mbedd mi lam koy wax ana sa karta bu ko ne sama kartaa ngi nii daf koy du mooy dem yoonam wala déet lu dagan lu laab lu set lii di ab sëy bu barkeel ci additeel yooyu ñu ne warula am waaye nag safaan ba bu dee ak njaalo war na am daf may fàttalil benn réew ci réew yi jullit yi wala réew yi nga xam ne ay jullit a ko dëkke euh, la fa xew ci su fekkee ne nit ki dañ ko indi tribunal ne ko yow dangaa takk ñaari jabar ñaareelu jabar mu ne waaw ci kaso gi lay xaw a boo sàggane waaye nag buñ ko nee dangaa ngaa takk ñaareelu jabar mu ne déedéet ñu ne ko diw mi ngay ànd nga ne du sa ñaari jabar mu ne déedéet kooku sama àndaale rek la Euh, euh, sama sama àndaale rek la waaye du kii du sama jabar dañ ko naan kon baax na mën nga dem àndaale la mën naa dem ak moom ci lu naqari yàlla waaye bu nangoo ne jabar la kaso la jëm yaakaar naa sorewut ak ñi wax ni sëy bu teel nangam ak nàngam kii ca njaalo ga bañuñu mbokk yi ànd ak loolu yàlla subhanahu wa taala mi bind doomu aadama xam ko dogal na ci ay nit ñu am doom ci âge boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jabaro aïcha radiallahu xanaa muy jëf ju fen loo waxi ñooña fii benn médecin toog na fi su ma ko waxoon ñu bari ci yéen xam ko moom nettali na ma ku ko téléphone ndaw su ko téléphoné woon ndax ndaw sum toogaloon fekk daf koo consulter yëg ne dafa ëmb muy waxtaan ak moom di ko expliquer ti nu muy def ba wax ko ne ko da ëmb nekk na problème fekk na ne ndaw soosa booba ci juróom-ñeenti at la toll kon mbokki dama ne yonent bi sallallahu alayhi wa moom la yàlla subhanahu wa taala xamal moom la tànnal soxna sim ko tànnal mu gën a placé ci xolam yàlla subhaanahu wa taala barkeel soxna soosa def ko muy rootkat bi root xam-xamu yonent bi sallallahu alayhi wa rootin wu xam ne tën góor ñu baree bari soxna soosu fi ko yàlla denc loo yonent bi sallallahu alayhi wa foofu mooy fa yàlla gërëm ne lu mën a nekk la képp ku gàddu làmmiñam wax ca leneen lu dul loola na fekk du julit kooka lu ko neex sañ na ko wax du ko wàññi dara ndax kéeféer amul lu ko féete ko waaye kii julit moom su ca naree gàddu làmmiñ ngirug mbamb na tiit ci digganteem ak boromam la ko mën a ñëwal ca mbamb yooya muy mbamb li yàlla légalisé kam ko jaarale de kam tànn ci jaamam yi muy yonent bi sallallahu alayhi wa kon boobu tomb nañ ko bàyyiwaale xel ci bi ñuy wax ngone suñu yaay Aïcha radiallahu anha waaye mbokk yi suñu yaay Aïcha radiallahu anha xam-xamam bëgg yàllaam bëgg yonentam sallallahu alayhi wa sallam doon na feeñ ci mépp mbir ba même bu gisaan ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku xolam neexut la muy njëkk def balaa mooy xam sabab bi mooy njëkk a ak tuubam njëkk njëkk a ak tuubam ak jéggalum ba pare soog laaj lan laa def euh, amaan na loolu dafa bokk ci dégg gu mu dégg alquran seetlu ngeen ci taw ba yàlla subhanahu wa bi muy wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam lu tax ñi bañ a dem jihaad di wut ay lay ñëw tàggu rek nga daal di leen jox ndigal ñu toog nan la ko yàlla waxee ndax yàlla dafa buur rek ne ko lu tax nga jox leen ndigal ñu toog waroon ngaa xaar déedéet dafa njëkk ne ko xafallahu ank xafallahu ank li ma azinta lahum xata yatabayan laka lazina sadaqu wa ta'lamu al-kaadibiin yal na la yàlla jéggal lu tax nga leen di jox ndigal te xaaruloo ba ràññee kiy dëggu ci ñoom ak kiy fen ma ne Aïsa nu mel noonu la doon def bis yonent bi sallallahu dafa bàyyi ko ci tukki ñëw taxaw ci bunt kër bunt néeg bi rek kanam gi soppeeku su yaay Aïsa lan la wax dafa ne tuub naa dellu ci yàlla ak yonentam yow yonent yàlla bi lan lan ban bàkkaar laa def maa ngi tuub di jégglu yàlla di jégglu yonentu yàlla yonentu lan laa def ban bàkkaar laa def est-ce que noonu lañu ñu miin ñun yaakaar naa li ñu miin mooy borom kër bu bàyyi ci tukki taxaw ci buntu kër gi rek karamam soppeeku dañ ko doon waaye yow du cóoral ji nga ñëwee mbaa jàmm ah, yow yegg si kenn waxagut ak kàddu kenn waxagut ak yow sax nga fi nga du cóoral mer ba fees nii waaye moom déedéet moom dafa jàpp ne mer mi mooy sabab bi kon na njëkk a tuub ci yàlla lu mu merloo borom këram ba pare it borom këram lu mu ko merloo ba mu waxee loola yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko Aïcha xanaa xamoo ñi gën a tar mbugal ëllëg yowmal qiyaama mooy nit ñi nga xam ne dañuy topp ndoor bindu yàlla gi di def nataal yu ni mel lu waral loola Aïcha dafa ne dama def ci rido bi ci buntu néeg bi rido bu xam ne dafa am nataali borom bakkan dafa am ay nataali borom bakkan ba ko yonent bi sallallahu alayhi wa gisee kanamam soppeeku ma ne ko yonent bi tuub naa dellu ci yàlla di jégglu yonent bi yàlla ban bàkkaar laa def yonent bi sallallahu alayhi wa wax ko wax ji nan la daldi def ci saa ñu dal dindi rido bi dagg ko ay njegenaay lu tax lu neex yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ci jublu woon bam mu xamee ne naqari moo ci jubbu moo ci jubdu ca la ca daal lu ko waral ñaari yëf xàmmee ak bëgg tegee ci njub toujours xàmmee ak bëgg tegee ci njub toujours mbokk yi suñu yaay Aïcha radiallahu anha misaal la woon ci mbaax misaal la woon ci barke misaal la woon ci xam-xam waaye misaal la woon itam ci jàngale loolu nag buñ ko waxee day feeñaale ci ne xàmmee am dana ko yeggale ci yonent bi junj dara sax junj ba rek mu daldi ci jëlee moom lan la yonent bi bëgg a wax alayhi salaatu wasalaam euh, dafay nettali benn jigéen bu ñëwoon di laaj yonent bi sallallahu alayhi euh, su fekkee ne gis na baax ba pare ca nu mu war a def yonent bi sallallahu di ko wax nu muy sangoo waaye wan ko it ne na jël morceau parfum euh, pour laabee ko mu ne ko nga jël morceau parfum nga laabee ko soxna sa ne ko laabe ko ci nan mu ko nga jël morceau subhaanallah laab laabe ci nan laabe ci subhaanallah nga laabe ko lu tax parce que yontu bi sallallahu alayhi wasallam bëggula yegg directement ca kàddu ganam gën a xóote waaye ba mu junjee ñaari yoon Aïcha xam na li yonent bi bëgg a wax moo ko bas ndaw si leeralal ko masala bi ba mu leer na ca na yonente bi sallallahu alayhi wasallam ca loola loolu kon mbokk yi dafay feeñ ci ne jigéeni jullit ci kanam ku yàlla dénk xam-xam dafay yittewoo xam la sew ak la dijji ca lay jógee ca moom ba léeg-léeg bu junjee ay junj yu xam ne góor mënu caa yegg jigéen fekk na ne moom soxna si xam na ko xamin wu leer wu xam ne dana mën a jàngal jigéen ñi ba mu leer loolu nag su ko waxee amaan na ñu bari dañuy séentu ñu ne soxnaay ustaas yi lañ wax déedéet soxnaay ustaas yi rek de kan ci yéen ko amul xam-xam ma ne kan ci ñi fi teew ko amul xam-xam képp kenn ci ñi fi teew am na lum xam ndax loola mu xam xamal na ko waa këram ba bu ca gag ñëwee waa këram man koy leeral loola taxawaay la bu suñu Aïsa radiallahu anha amoon waaye it dafa war a nekk taxawaay bu xam ne jullit yi dañ koy doon ci suñu Aïsa dañ koy doon ci sëriñam boobu di yonentub yàlla bi nga xam ne moo yore woon këram noonu waaye mbokk yi suñu Aïsa bu ñu xoolee wàll googu ci xam-xam bu ñu geestu woon geneen wàll danañu gën a yéeme mooy wàllu tabe wàllu bëgg joxe euh, ñun li miin mooy soxna si kilifa gi moom ñëppay ñëw di ko jox rek wala déet du loolu lañ miin kii nag moom mooy joxe rek amaan na buñ ci jëloon ñaari misaal tey rek doon na dooy amaan na la ca des beneen dars benn bi mooy jaam buy jaay jaam bu xam ne sangam dafa bindu wante ak moom pour lan pour liggéeyal nga fay alal ba gore kooka ñëw ci suñu yaay Aïsa di ko ñaan ndimbal ci sas woowu ñu sas ko lu mu ko ca dimbali lan la ko Aïsa wax daf ko ne boo bëggee ma def lu dul loolu mooy waxuma ma dimbalee la waaye sëg njëg yépp ma fayal la ko benn yoon nga gore su ko defee nag nga nekk sama péete nga féete ak nag loolu xaarul ba yonent bi ñëw mu wax ci de alalam la tiyaabu la bëgg waaye mbokk yi mbaa eh, la dul lislaam noonu la joxee jigéen cër wallahi masakin jigéen lislaam dañoo jara yërëm parce que ñu ngi leen gëmloo ne lislaam day jaamloo jigéen fekk lislaam libéré liberté gi mu libéré jigéen lu du lislaam libéré wu ko jigéen Europe kañ lañu commencé jox jigéen droit muy soppat ci alalu boppam kañ barki de mooy njaay daa xóoruñ woon ne jigéen dana am droit soppat ci alalam ci lu dul ndigalu jëkkëram suñu Aïsa radiallahu anha waxaale na jaam bi ma ko demal ca ña la moomoon ne leen buñ daa ko ma fay leen benn yoon gore kañ la ci yonent bi jot kañ la ci jot ba ñooña waxee lu jara a seetaat ñooña ne ko waaw d'accord nañu na la jënd mu goreel la waaye féete gi nag ñun ñoo lay féete gannaaw foofa la ko jot lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne ko déedéet jàndal nga gore alwalaau liman aataq péete ku goreel moo ko moom péete mooy lan bunt la bu xam ne tollu woon ci fi ne ci buntu miraas lu mën a xew mooy ki nga xam ne yaa ko goreel ëllëg yenay doon nante su fekkee amul keneen ku ko doon na ci askan soo amul ku ko doon na ci askan yaa koy doon ma ne alal ju toll na jand bakkanu doomu aadama goreel ko bu xam ne ña ko moomoon ñoom dañewuñoo ñàkk loola lu dul del liggéey dañu fay ba baa ngay pare wane na tabe Aïcha waaye am na geneen euh, tabe gu feeñ ci suñu Aïcha moo gën a tey yéeme boog yaakaar naa ne mooy benn bis dañu ko yónnee alal ju baree bare bari su xam ne boo ko doon nattale suñ jamono tey dana dem ci million Aïsa di yónnee di ko séddale di yónnee di ko séddale di ko yónnee di séddale ba ngoon jot fekk dafa yendoo woon woor lan lañu am comme ndogu ay dami tumbur ay ñam yu yemaay lañ nar ndogoo jànqam bi ci nee bi ne ko alal ji nga yendoo séddale yépp waroon nga see mën a jënd yàpp wu ñu sax lan la ko wax mu ne ko moo na boo ma ko fàttali woon ma def ko de lu xam ne bari na ba waroon a yegg ci million mu séddale ko bam jeex fàtte lu ñu war a ndogoo ci kër gi mbokk yi ban jigéen ngeen gis muy séddalee noonu bal bu gisee borom kër gi nar a séddalee noonu sax boo sàgganee àdduna taxaw te dootu toog waaye loolu yëpp lu ko yóbbulee Aïssa mbokk yi mooy xalaat àllaaxira mooy xalaat safara mooy bëgg a dëkkee aljana te loolu ak yëg-yëg la woon gu doon bax ci xolam toujours ndax benn bis yonent bi sallallahu alayhi fekk na ko mu toog di jooy mu ne ko Aïcha lu la jooyloo mu ne ko xanaa fàttale ko yowmal qiyaama ak tartar ya fa nekk ba pare teg cib laaj ne ko ah mbaa yonente bu bu keroogee da ngeen fàttale ko seen njaboot ki bokk mbaa da ngeen bàyyi xel seen njaboot gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah, bu dee ñetti barab de kenn du xalaat ku dut boppam kenn du xalaat ku boppam kan mooy wax loolu ah yonent bi yàlla ñetti barab yooyu ban la benn bi mooy téere jëf yi bu ñuy naaw jëm ci seedi borom xamagoo téere bi ci sa ndeyjoor lay tàbbi wala sa càmmoñ lay tàbbi ba baa loola di sottee ku nekk dana yaakaar ni moom dong la yàlla ji waaw xelam du daj kurut boppam ñaareel ba téere yooyu bu ñu leen tegee ci balance bi di leen peese ndax boo wàllu ndeyjoor bay lëng te mooy jëf yu baax yi walla wàllu càmmoñ ba ngay xool laamu balance bi fan lay jëm foofa itam ni ku nekk sa bopp rek ngay xalaat ñetteel ba mooy tàllal siraat ci kaw jahannam nara jéggi wàcc ca geneen wàll ga muy aljana mbaa daanu ci suuf muy safara fii hiddee ki xas départ ba baa mooy cëppeelu ca geneen wàll ga boppam dong lay xalaat ah mbokki kàddu gi dafa tumaranke génn alquran ko wax li kulli minhum yawma idin yuxni li kulli la wax de li kulli mri'in képp kenn ku mën doon bisub keroog am na mbir mu ko doy képp kenn nag mbokk yi ma ne yëg-yëg boobu suñu yaay Aïsa radiallahu anha daan yëg ba di jooy fu ko yonent bi yàlla fekkee ci melokaan yooyu ba di ko laaj muy dolleeku ak yëg-yëg ci barab booba ëllëg nu muy demee moo ko jàppandalal yu baree bari yi ngeen dégg ci ay jikko ay mbaax ay sell ay laab ngir lan ngir nekku àllaaxira yitteel sag àdduna woyof kon mbokk yi suñu Aïsa radiallahu anha saxiix soxna si yónent la woon waaye nag moom du doon yónent noonu ngeen dégg mu mel meleewu ko loolu dafa topp njàngaleem yónent moo tax mu mel noonu njàngaleem yónent moomu mu topp ba mel noonu ndax njàngale moomu dafa far ci sunu kanam mënatuñ koo gis ah déedéet yaa xabaar njàngalem yonent moomu mu topp ba tax mu mel nii ñu dégg njàngalem yonent moomu yàlla sàmmal nañu ko ci alquran ak sunna mu ngi ci loxol jullit yi kon képp ku xam ne topp na njàngale mooma na ko Aïsa toppe woon waxuma ne dana mel na moom de waaye dana am cër insha allah waaw waxuma ne dana mel na moom ndax booba génération seen relation saxaaba yi genn giir la gu jaaroon te du répété wu waaye nag topp ca ba baax moom lu mën a nekk la te naa ne ñun bu ñu xasee am baax rek sant yàlla ndax yàlla subhanahu wa taala kat même yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu ko nettalee ay yonent yu bari ci sootu al daf ko ca tegal mu ne ko ulaika alladina hada allahu fa bi hudaahu muqtadi ñooña ñooy ñi yàlla jubal seenu njub na nga ca roy kon ñu ni tam mbokk yi sahabatu rasul sallallahu alayhi wa sallam ñooy ñi yàlla jubal ci xeet wii njubalin gu xam ne kenn dabun leen kon ñu nit nañu roy ci seenu njub mu doy ñu sëkk ak roy xam nga lu tax mu war ñoo doy sëkk ak roy mooy ne ñoom la yàlla subhaanahu wa taala ku mel na ñoom rek ku jaar ci seenu yoon rek kooka baaxle na waaye ku ko wàcce nag yàqu na fa in aamanu bi misli ma aamantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaaq yàlla subhaanahu wa taala ne saxaaba yi ñu dul yéen suñ gëmee ngëmin wu mel na wi ngeen gëm ñooñe kon ñu jub lañu mbokk yi sama njub sa njub njubuk waaja ñu ngi koy natt ci kemtalaayul dëppoo ak saxaaba yi lu ñu gëm su fekkee ne dëppoog saxaaba yi lu ñu am na njub am na su fekkee wuuteeg saxaaba yi lu ñu am na kon njubadi am na ma tax may jeexale wa man yusaaqiqi rasul min baadi ma tabayyana lahu lhudaa wa yattabi' ghayra sabili almuminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira yàlla subhaanahu wa taala mu ne képp ku ŋaayoo ku séddale ko ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yoon ku xaajoo ak yonent bi mu jaar ci yoon wudul yoonu ñu gëm yàlla yoonu ñu gëm yàlla bi aaya bi wàcc ñan la woon saxaaba yi radiyallahu alayhim yàlla mu ne képp ku def loolu danañ ko féetaleeg fa mu féete ëllëg yow mal xiyaama ñu dugal ko jahannam kon mbokk yi nañu continuer di jàngat moo xam ci góor ñi wala ci jigéen ñi dundin wa saxaaba yi nekkoon moo xam saxaaba yu góor yi ak yu jigéen yi yëg ne fa ñu yegg ci mbaax topp njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa moo leen ko may njàngale moom yàlla sàmm nañu ko mu ngi ci suñ kanam ñu nit nañu ca topp ngir ëllëg yowmal qiyaama bu ñu yeggut ci seeni jëf ci ngëneelu yàlla yàlla boole ñoom ñoom da ngeen ne mënta nekk ah ah kay del jéem roy ñu baax ñi doonte manoo yegg fa ñu tollu na nga xam ne roy ñu baax ñi ak texe la te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na al mar'u ma'a man ahab nit ki ëllëg yowmal xiyaama mu ngay nekk ak ña mu bëgg moo tax anas mu ne gannaaw lislaam saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam mosu ñoo am mbégte mu toll na keroog bi ñu déggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax kàddu googu lu tax anas mu ne man wér na ma ne bëgg naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam wér na ma ne bëgg naa Ababacar wér na ne bëgg naa Omar te itam maa ngi yaakaar yàlla mu dëkkale ma ak ñoom ma tax mbokk yi kon ñun itam du ñu bëgg yonent bi ñu roy ko ndax du ñu bëgg Aïsa mi yonent bi bëgg yàlla bëggloo ko ko muy tànneef ci jigéen yi adduna bi ndax ñu itam du ñu ko bëgg ndax du ñu leen roy ndax yàlla subhanahu wa taala boole ñoom ñoom ëllëg yowm alqiyaama yàlla lañuy ñaan ci ngëneelam mu wasagal ñu dundin wu mel na wu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaabaam wasagal ñu ci ngëneelam ëllëg ñu dëkkak ñoom ci këru teraanga amaan na bu ñu yàlla mayee ci beneen dars incha allah danañu continuer ak suñu yaay ji ndax aqan mooy suñu yaay ndax yàlla subhanahu wa taala moo ne wa azwaajuhu ummahatuhum soxna yonent bi ñooy seeni yaay kon nit warut yokkat ci waxtaane aw yaa ay yaayam waaye nag fu mu déggee ku xas yaayam saditam war naa jëm wa sallallahu wa sallam muhammad wa